رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سند سنبرم سبحانه وتعالى دينا سند بتدب سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلك المخي ولك مجد noo koy ñaanal ak njabootam ak ay àndandoom ak képp ku jaar ci xàll win fi ba ba keroog nuy taxaw ci sunu kanamu borom bu bis bu bàyyam na fekk yàlla gërëm na di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi di leen ziyaar di leen bal xaq te leen koy balu di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na ñu yàlla boole baal jamee taxil quran karim bi Fass Touré àndoon ak mbokk yi daara yi ak mbokki jàngkat alquran ak yi amoon yéene tey jii ci alxamis ji le 8 novembre incha allah ñu daje fii ci euh, salle confrance bu daarul iman am fi ak kendal goo xam ni dañ cee bëgg a jàppalante fàttalante ci ci liggéey bi ñu séq nan la def ba mu gën a ñëw waaye nan la ñuy def ba mu gën a wér euh, alhamdulilah rabil alamin waaj gi mën naa am def na ñetti semaine Eh, yàlla dogal nañu ñenn ci ñi bindu agsi nañ ñi ci des jàpp nañu ñu ci yoon wi yàlla yàlla defal tawfiq ñëpp bañu agsi ak jàmm nañ ko waaje woon ak lañ ca bëggoon lépp it eh, bu doon téeméer la borom bi defalandi defal nañu juróom-ñeent fukki yi fi mu ne nii kon noo ngi am yaakaar bu wér ci ne incha allah la ci des dana mat yal na ko yàlla yal na ci yàlla def tawfiq bu ko defee dawra bi ñu ngeen ko xamee dawra boo xam ni eh, noonu moo ko junjee gisoon ngeen ci kayit yi nii jëmmi dawra bi eh, Oustaz Mokhtar Sylla moo mooy mooy mudiru dawra moom lañuy ñuy joyal kàddu ko ci moom mu def kàddu tijjeem dalal ñi ñi toog présenter incha allah waraq yi fi war a am ak ñi koy def ñëpp bu paree ñu dugg soobu ci waraq bi ci bi war a jiitu te Cheikh na Oustaz Aboubacar Ngom war koo taxawee Oustaz Mohamed Wilane war ko war a jiite jotaay boobu bii du guddal sunu kàddu. dañuy bàyyi Oustaz Makhtar incha allah mu dugg ci kàddoom bu paree rek ñu dugg ci warqa bi directement salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي سنتي على سبحانه وتعالى دي جلتي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أكي صحابة أكيب كل خن بلو لو ñu ngi dalal gan ñi ci saal bi gani alquran ci saal bi nga xam leen fi dajale mooy jéem a pexe ngir alquran aw njànginam gën a set niñ koy jàngalee gën a set niñ ci yare xale yi tamit gën a tege ci yoon dawra bi nag lajnatu lajnatu daawati wal irshaad at taabiati لجميع أهل القرآن الكريم فاسر موك أورغانيزي تنجيتال محمد المجيم موجيدة لجنبي نو بوكنا تي حمل النبوة بدفع غير نشاطات أي نشاطات دعوية لكا بوكنا تنظيم دورات تدريبية لمحفظ القرآن أو لمعلم القرآن بي بان لا تيويا لي كو تاجو هيت موي يكتي نيفو جانغلي كاتي القران يي ci walu njàng mu tege ci yoon ak jàngin wu tege ci yoon ndax suñ borom dafa wax ne inna nahnu nazzalna adh dhikra wa inna lahu la yàlla dafa wax ne man ma wàcc alquran te dana ko wat daal di wut ay kay ay kay ak ay kat dencukaay yi mooy xale yi jàng alquran fa la ñuy denc alquran ji denckat yi mooy ñi leen koy jàngal yàlla jëfandikoo ñaar ñooñu pour denc alquran pour boobaa nag la muy waral mooy war nañoo fexe ba la ñuy denc lañuy denc mel na mu wàcce woon ca sayid ala sayidna rasul bi wasati jibril alayhi salaam te mooy mu ne alquran ju wér ju rafet loolu dawra bi lu mel noonu lay dox loolu da ngeen bu ñu waxee waraqaati rek da ngeen xam ni looloo ko tax a jóg su ko defee dawra bi am na ñeenti waraqa maanaam am na ñeenti mawduu yoo xam ne bu ci nekk am na ku koy taxaw ci mbokk yi mawdu bu ci njëkk mooy muqawimaatu shaxsiyati mudarrisil quraanil karim maanaam yan critère yan melo kan ana nan la waji jàngal alquran wara mel waaw yan critère nan la wara mel ci comportement akhlaqiyan sulukiyan hindamiyan fi kulli yani maratib hayatihi aw tatawuraatihi fi fi tadris léegi nag nan la war a mel loolu incha allah al ustaaz Aboubacrine Ngom bii toog moo ñu moo ñu koy waxal incha allah moo ñu koy leeralal te ahlu li dalik ndax dafa yor daara alquran di jàngale alquran ñu ràññee ko bu baax ci wàll bi ci wàllu alquran ak wàllu xam-xam macha allah barakallahu fii ki koy defal taqdim maanaam ki koy kii président jataay boobu mooy kii toog dana man ustaz Mouhamed Wilane moom tam yor daara alquran mooy toog ci wetam incha allah ubbil ko bu paree mu tëj jataay boobu bu war a xam ñaareel bi. موي المدارس القرآنية مشكلات وحلول مانام دار القرآنية مشاكل جان كونتيل تيوال يب تي تعليم بي تي تربية بي تي إدارة بي إدارة المدرسة تي أولياء الطلبة التلاميذ اللبرة مبكم ميغو حاني موي الحاج الشيخ نياي موي الحاج فالو نياي بودك توبا mi ngeen ko ci jotaay yu mel nii moom tam daal alxuraan la yor accès gudd nag waaye accès ci dëkk bi ñoo gudd ci place bi waaye mi ci benn barab xam naa leen accès moom mooy moo ñuy jàngatal tomb boobu mbokk mi nga xam ne moo koy jiiteel jotaayam boobu mooy kàbb kebe ñoom ñaar ñëpp kenn koy daal alxuraan nga yor di liggéey liggéey bu mag euh, ñetteelu waraqa bi mooy tambihaat liman yaqra برواية حفص من طريق الشاطبية maanaam genneeku ak bàyyi xel yi nga xam ne kii jàng war xafs tey jàng tariq chatibiya tariq chatibiya mooy maddul munfasil pour mu gàtt ngeen xam ko tariq chatibiya mooy maddul xam ngeen ne xafs dafa am ay turuq waaye tariqa bii ñu gën a bi gën a yaatu ci Sénégal fi ne mooy tariq chatibiya mu gën a yaatu donte ñu bëree bëri dañoo jàng tariq daraan aw tariq fiil te mooy qasr munfasil léegi nag kii jàng رواية حص من طريق الشاطبية أن أي بربي بربر يقوت لكي جنغ رواية حص من طريق فيل أو درعا لين الله لا ينبغى سجن بك الأستاذ ما فعل لنجي أبو طه مو مو أخبر تريتي مو أخبر الليرة البن بك ني جنغ من تبايخا نخ سابو بولي نياري طريقة جنغ ما يدقق سند بي السند في القرآن مبارك فيه ما نكر كو ijaasa ci alquran rek waroo jàngale waaye nag dana barkeel wax nañ ki am sanat am riwaaya man a wax ne ma diwoo ma jàngal diwoo ko jàngal diwoo ko jàngal ba sayyidna rasul kooku am am alquran moo ëpp barke ki amul loolu te boo jëlee tariq chatibiya nga jaxasoo zaraan amutoo tariq waasila ila rasul amutoo sanat moo tax dañ ko war a xam booy jàng tal chatibiya am na ay tanbihaat yoo war a am loolu ustaz Mouhamed moo koy def ki koy ubbil jotaay boobu mooy سعد أبيه قال له موقت تجي جرب إن شاء الله دير دعين بالما عبد الله فال وعبد فال موقت تجي وارد هنيول محمد جاي بين خم محمد جاي شاطبي محمد جاي تسس جاي تسس موقت بيل إن شاء الله جرابي عبد الله فال هو نوبي عارف أم عنده بنيول ورقة نيان كلمة ما يبغى ماي التجويد باب صفات الحروف خبير التجويد فن وياتلا غبري اي شعب بري اي يف واي بوكل دي بيغي كومبليكي كي يا خوال موي صفات الحروف صفات الحروف مام قراء يبري بري دي ام بروبليم ميم ني خاوا ماك ني دا جاب جاف جاف لي نك موضوع بابو تجويد كي نكو دراسال موي محمد عبد العزيز توري موي كاوسي عبد العزيز توري تفاس moo koy diraasa ñëw na moom itam France na wala bu teel naa ñëw xam naa dana agsi mooy di koy diraasa la mooy waraxa bu mujj bi moom moom yi nag saadu abi yi gàll ko moo koy tijjil waraxa boobu moo ko koy daaraam kon ñeenti waraxa yooyu incha allah lañ bëgg a jàngat fii tey ci dawra bi eh, ba li yàlla doxal mu génn kenn ku nekk ci ñuy jàngat nag am nga waxtu ak genn wàll goo xam ne ci la niqaas bi nekk niqaas bi mooy boo defee ard ba pare ñi am asila ak ñi am contribution dañ am daal lépp dana waxtu ak fanweeri minute boobu waraqa jeex ñu jël beneen waraq loolu incha allah dama daal jox léegi oustaz Mouhamed Wilane mu daal di ubbil Chaaw Bakrin mu daal di dugg ci waraqaam incha allahu taala ñi ñi yeex a ñëw nag ah buñ tardee li mi ba wax nii aham shay al asas yaani ak tartib tartibu la awraaq boo ko xoolee nga xam dañoo tësi al awla summa al awla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 الحمد لله الذي خلق الإنسان فسوى وقدر صورته فهدى وأنزل القرآن بصيرا ونذيرا وألزمنا بالتمسك به تلاوة وتخلقا وبشرنا بأن القرآن الكريم هدى للناس وبالأخص للمؤمنين حيث قال تعالى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 ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا سديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا جنا بنيو سنت الله سبحانه وتعالى بجلس ينتبه صلى الله عليه وسلم ين سنين بوك آه، سنين بوك داره yen suñuy ustaaz yi nga xamne ne ñi jàngal alquran wa bil axasi alladi an yamini ustaaz muxtaar silla mi nga xamne euh talamaztu tahta riayatihim nga xamne ñom ñoy ñi jàngal sax ba iji ñu ngi leen di nuyu yen ñep di leen ziaré mais itam nak di am mbégte ak kontante bu baax di jàkkaarloo yéen pour ñu def ay jàngat yoo xam ne dirasat amala pour euh, alquran ji nga xam ne ñun moom lañ jël def ko na mu nekk métier boo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa moom la amee woon te daaw si woon laaj fay su ko defee ñun ñu ne ñun ñoo ko wuutu ci loola ndaxte yenent bi moom moo ñu ko may moo ne al ulama warasatul anbiya su ko defee lu mel noonu boo ko amee mu aajowoo am noo mu aajowoo am noo mel ak nooy waxee ak nooy defee ci diggante ak doomu aadama yi ndaxte rôle boobu mission boobu masuliya boobu soo ko xasee ba gàddu léegi dootoo doon n'importe kii waaye référence ngay mujj doon boo xam ne nit ñi dañoo war di xool si yow si loolu nag si lañ leen tànnalee oustaz Aboubacar Ngom oustaz bu fekkee ne bëgg nañoo xam tuuti si moom rek moom si ñi nga xam ne nitu ndakaaru yi la bokk te melut ni ñoom maanaam fi la juddoo rek waaye nag yorewuñ jikkoy ndakaaru parce que Dakar dafa am jikkoy bopom, spécial nga xam ne ko jang si école waye ding ko jang si école de la rue <laughs> mom fi la juddo waye nak fele si dekk bi ñu wax campement ngeexoox fa la jangé alcorane ba mokal alcorane bim fa jógee bind fa kaamil ndax magña magni fofu lañu rawé ñu bari ñom riwaya bi nga jang dang kay bind motax man jang na riwaya sangam si diw sangam dañ nan la ana firnde bi ñom seen diplôme mo doon bo mokale alquran da ngay bind alquran te do bo koy bind dang kay bekk bekk moy ngay bind te do ko xol si riwaya bi nga mokale yalla wërsegal nako mu bok si ñoña amna diplôme kon mag ñi su ko defé mu joggé fofu yemut fa si wala alquran waaye dafa xuus ci xam-xami alxuraan yi moo xam fiq la ak matière bu mënta doon boo xam ne am na alaaqa ak suñu diine ji rekk su ko defee xuus na si jaar si bët dëkk yu bare nag bokk na ci dëkk yi nga xam ne jaar na fa ngir jàng tiwaawoon jaar na fa jàng na fa la fa gaa di jàng dem na Kawlax jàng na fa waaye tamit dem na Tuubaa dëkk bu sell bi jàng na fa moom itam waaye taxul mu doyal parce que xam-xam am na boo foo xam ne boo fa tollee dootuloo doyal da ngay xuus continuer noonu mu jóge Sénégal dem muritani Mauritanie bi mu fa demee jaar na ci benn dëkk bu ñuy wax Baaxiya lu Baaxiya aywa bi nuun aywa nu Baaxiya jaar na fa man maa ngi doon jum si tur bi sax naan baax ya moo tax xawoon na ma jaaxal kon nu baax ya jaar na fa ak dëkk bi ñuy wax noo ak sol ku ne xam na ne dëkk yooyu dëkku xam-xam la jaar na fa jàng waaye nag mu tëjee ak njàngam njàngum élément élémentaire ko si nuñ koy waxee mu tëjee ko Fass ci matière yoo xam ne demoon na ko gëstu ba yàlla ubbil ko si yalla am lum ko ci xamal danaka tengk, moñu teunk mom mo nañu yu bari buñ ko wax motax dañ leen di yamale fofu al isharatu takfi liman aqal kon koku mom moy oustaz babakar Ngom Nek fele nak Thiès ubi fa bumak, internat bu mag bo xamne comme niko ko di waxe serigne bu mag la yore daara ju mag ak juma ju mag ci wet ja kon euh, niko gaay di présenter légui légui léegi-léegi mom non la mel kon nak mu ngi non euh mom moñu wara defalal waxtan ci sifatul muallim moy muallim bi ban melokan la wara yor nan la wara mel kon dañuy def rek duñ def lu moy jox ko micro bi inshallah mu waxal ni deug deug euh kan moy kan moy jangale kat su ko defé bu fekké ne ta'rif biñ ko ta'rifal amna lu dess mu dal di kay motali insha allah kon nak al ustaz al microphone bayna yaday insha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم بكاتبه في سنت أكرم سنبرم تبارك وتعالى بيجا خمني مون جفل التوفيق بن منا سيق جتاي بيجا خمني جبل واي موي خدمة كتاب الله تبارك وتعالى di sant it jamiyatul quraanil karim bi Fass Touré jamiya bi nga xam ni moo tanzim jataay bi ngir jubluwaay boobu ñu waxoon léegi mooy xidmatu kitaabillah azza wa jalla te al ustaaz cheikh Mouhamadul Muxtaar si la nekk ci bopp bi di sant mbokki sëriñ daara yi ci seen teewaay ngir ànd ak ñun wala ànd ak jamee bi jataay yi nga xam ni fas yéene nañ koo amal ci bisu tey bi euh, li nga xam ni mooy suñu tomb bi ñu war a waxtaane wala mawdu bi Cheikh Muxtaar ak Cheikh Mouhamed tudd nañ ko léegi mooy rekk ci tënk bu gàtt melokaani jàngalekat alxuraan suñ ne melokaanu jàngalekat alxuraan nag Euh, day koy mën a séddale ci ñaar ndax bi si fa am melokaan yi ñuy tudd yi ci ëpp melokaanu jullit la doonte sax jàngalewul alquraanul karim kon melokaan yooyu képp ku di jullit même boo jàngalewul alquraan war nga ko meloo am ci yoo xam ne nag ka ko jagoo mooy jàngalekatu alquraan ba tax na kon képp ku toog di jàngale alxuraan daa gis ni melokaan yi ñuy wax dana am yu ci bari yoo xam ne daje na ci yow waaye nag du ñàkk yenn yoo xam ni dajewut su boobaa nga jéem a góor def effort ba fexe yépp dajaloo ngir nga gën a mën a taxawee liggéey bi nga xam ne mooy jottali téere suñu borom bi tabaaraka wa taala ci anam gi mu gën a rafete ak anam gi mu gën a mucce ci ayib dañu ko séddale moom waraqa bi ci ñetti tomb benn bi mu ngi dellu ci melokaan yi nga xam moy walu wàllu pas-pas li nit ki di fas ci xolam ndax pas-pas nak buñ ko waxé ab julit ci pas-pas lay tambalé walu melokaan yi nga xam ne ci ci kat bi limu wara fas waye fas waaye jikkooy jàngalekat bi yim wara am ci walu jëflante ak ci walu comportement tomb ci top moy jàngalekat alquran ni mu war a mel ci wàllu solam ak ci wàllu liy feeñ ci moom nit ñi di ko gis dafay am jokkaloo ak téere bi muy jàngale ndax lépp loo xam ne day xemmem loo nit ñi ci alquran dañ cee war a góorgóorlu rawatina jàngalekat alquran yi waaye lépp loo xam ni dafay tax nit ñi dëddu alquran wan ko ginnaaw loolu it dañ ko war a sori moytandiku ko tombub ñetteel bi mooy yi nga xam ne dafay aju nag ci wàllu métier mi nga xam ne moom la métier woo te mooy jàngale alquraanul karim fi ñu tàmbalee balaa ñuy dugg ci tomb bu njëkk bi mooy dañuy wax ni métier mi nga xam ni mooy métieram jàngale rek jàngale ci boppam rek ak yàlla dafa bokk ci métier yi ëpp solo ci métier yi ndax jubluwaayam mooy defar doomu aadama ak baaxal ab société ci bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu jàngukaay yi ci lañuy ñuy liggéeyee góor yi ëllëg yi nga xam ni ñoom ñooy taxawu askan wi loolu moo tax jàngalekat bu mant doon rek wàccuwaayam nekk na wàccuwaay bu mag segam lu baax lay jàngale waaye rolam nekk na rol boo xamante nii bu ràññiku la waaye nag jàngalekatu alquran nag moo gën a foor moo gën a màgg mboolem jàngalekat yépp jàngalekat bi gën a tedd ci jàngalekat yi mooy jàngalekat bi jàngale alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni xayrukum man taallama alqurana wa allama xadis boobu mu ngi ci saxiixul imaamul buxaari yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki gën ci yéen ki gën ci yéen neena moy ki jàng alquran diko jàngale kon bu la yàlla baxé nga nek ci micci momu kon yow bok nga ci tanne fi jami suñu borom tabaraka wa taala yi nga xamni ni yonent bi sédel na len ni ñoo gën ci nit ñi abu abdurrahman as-sulami minati li hadith bobu jële ko ci othman ibn affan radiyallahu anhu dafa wax ni fa dhalika alladhi aq'adani maq'adi hadha bi mu hadith bi ba dani man de fii ma toog di jàngale alquran li ma fi bàyyi mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi abdurahman assulami ci seen daara yu mag yi nga xam ni li mu jot a def ci njàngale alquran néew na nga gis ko ku ko def ndax boroom xam-xam yi ku mel ni ibnu kathir nee na abdurahman assulami jàngale na al alquranul karim taqoon na xalqa bi di jàngale juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar fukki at kooku xam naa kon jàngal na ay doomam ak i sëtam waaye ibnul jazari rahimahullah nee na jàngale na lu ëpp ñeent fukki at ibnu xajar rahimahullah nee na xilaaf am na ci waaye daal li wóor daal mooy ci xilaafatu Ousmane ibnu Affan ba ci wilaayatu alxajjaaj moom toog na di ko jàngal alxuraan kon lañ cey dégg ci tënk rek mooy lu mu gàtt gàtt moom fanweeri at yu mat sëkk jàngale na ko alxuraanu karim nee na la ko taxoon a toog jataay boobu yëpp nag du dara lu dul xadis boobu nga xam ne mooy xayrukum man taallama alqurana wa allama foofu balaa ñu jàll war nañ cee jële ab leçon ñun jàngalekat yi gis ku jàngale fukki at rek daal di bàyyi xalqa bi ak ay doomam wala ay xaleem wala ñu jàngaloon jàngale ak jaamu yàlla la doo retraite da ngay dem kay ba mënatoo wala nga tële waaye amul nombre boo xam ne boo leen jàngalee ba ñu mokkal wala diir boo xam ne boo ko géré xalqa bi rek léegi wàcc nga da ngaa war a toog don ab cheikh bo xamni yow legi so yone nekatul ci njàng dañuy informer rek xalqa baangi ngi dox gaa ngi jàng gaa ngi xëy warta a non kon lolit it ab leçon la bo xamni dañ ko wara jël xeyna ag ci niveau Abdourahman as-Sulami jafe na waaye nag loolu dañ ko wara jël tire ko mu don leçon bo xamni dañ koy bàyyi xel ñun en tant que jangale kat alquran ndax mom ak jaamu yàlla la jaamu yàlla amu retraite dem ba tële rek wala incha allahu day ñëw ah li waral nak ki jàngale alquran gën ci nit ñi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leer na ndax al alquran mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala waxi suñu borom tabaraka wa taala moo tiim wax yépp gën a tedd wax yépp gën a baax wax yépp gën a foor wax yépp kon ku cay sëgg subaa ngoon guddeeg bëccëg di ko def ci xolu doomu jullit ñi di ko tasaare amul sikk sàkkan yaa gën keneen koo xam ne mu ngay soxlawoo baa mu yittewoo leneen donte leneen doo sax lu baax la andak ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ñun ñi gor góorgóorlu ci jàngal alquran waru ñoo xébu waru ñu nang ku ñu xép moy métier mi ñu nek mo gën ci métier ngir anam gog mo waxon légui te moy alquran bi ñi jema jàngale diko tassara ma mooy waxi suñu borom tabaaraku taala wa ci gënal anam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam métier mi ñu nek mo ci suñu gi yonent bi mo ñëk doon ab sëriñ daara ndax suñu borom tabaaraku taala dafa jàngal jibril alquran jibril jàngal alquran yonente bi salallahu alayhi wa sallam alquran jooju jibril daf koo jotli muhammad salallahu alayhi wa alihi wa bi salallahu alayhi wa jot jotli ñu ko waaye ki ko wax nga xam ne moom lañuy ñuy askane wax ji moo ko moom mooy suñu borom tabaraka wa kon yonente doy na la yow saraf yow ab jullit nga yëngatu ci mbir moo xam ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a moo ko njëkk taxawee ci kaw suuf waaye yemul ci loolu bu ñu settantalee ci wàllu taarix dañu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ni jàngale alxuraan doo nga taxoon mu ñëw fi nag ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee ñeent fukki at ci la ko suñu borom tàmbalee waxyu alxuraan di wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wootee ci màkka fukki at ak ñett jóge fa gàddaay dem madina fukki at la fa def lépp di ñaar fukki at ak ñett mooy diiru wàccu alquran yonent bi bi mu jàngalee alquran ba mu jeex jàngal na ko saxaaba yi mokkal nañ ko xam nañ li muy firi xam nañ la ci yàlla jublu ci la mission am jeexee mu wujju suñu borom tabaraka wa taala kon bi alquran jeexee rek ci la wujju suñu borom tabaraka wa taala kon boo xoolee ci anam googu day mel ni li ko taxoon a ñëw mooy jàngale alquran lu dul alquran nag day ñëw di saraa alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day saraa alquran kon loolu moo tax ñu a gën a góorgóorluwaat gën a téye ci li ñu suñu borom tabaaraka wa taala jox gën a def ay effort nag ci lu koy gën a jëme kanam te am ci fulla ak fayda nag loolu moo tax kon nag ñu ko Seex Maxtaar junjee woon lu logique la suñu dawra bi ñu tàmbalee ko ci melokaanu jàngalekat alquran melokaanu jàngalekat alquran kii jàngal alquran lu mu war a mën a mel lu mu war a mel lan mooy ay jikkoom loolu mooy kayit wi ñu tiim maa ngi tàmbalee ci